yi xibaar yi dañ ci ànd léegi nii ak Fatima Ba xibaar yi Pape Cheikh comme mu nga ko xewoon ci njëlbeen euh, dañ koy doore ki nga xamante ne moom moo di Abdoulaye Wade ak kaddu yi mu yëkkati ne day déclarer guerre ki nga xamante ne moom moo di président euh, Macky Sall moom Abdoulaye Wade nag euh, daal di rek dellu si ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre ci place de l'Obélisque wax ne li mu bëgg moo di Macky Sall jógee ci bopp réew mi maanaam mu démissionné laata muy indi fitna fii ci Sénégal kàddu yooyu nag mu ngi ko ndaje bu mu ameloon ak taskatu xibaar yi Mody Gueye ak Thierno Laurent Mendy ñu ngi fa woon ñoom ñoo taataan ay kàddoom. on n'est même mais Macky Sall m'a attaqué je vais en guerre contre lui je suis obligé de développer pour que les Sénégalais comprennent tout ce que je peux avoir comme arme contre lui et contre sa famille. Alors maintenant, vous me dites, est-ce qu'on ne me pousse pas, on descend du piédestal Vous savez, moi je ne suis pas ce genre, parce que je suis chef d'État, je suis là-bas. Non, moi je suis, j'ai les pieds je suis dans le peuple. Moi, je ne marche pas sur les pieds, parce que je suis chef d'État. Non, non, non. Je voudrais vous dire aussi que ceux qui disent que c'est antidémocratique de demander à un président de démissionner, c'est de l'ignorance. Ils n'ont pas lu leur constitution. Les élections anticipées, c'est dans toutes les constitutions. Anticipées. C'est pour ça, dans l'intérêt du Sénégal, il doit partir. moom Abdoulaye Wade yëkkati yile kàddu ci nasaraan euh, moom nag xeex bi tàmbali na ko ndax daal di rek euh, daal dina dal bu baax a baax ci kaw Alioune Sall di rakk ci président Macky Sall moom nag da koy tuumal ne dafa am lu toll ci 30 pour cent euh, d'action ci société bi di Petrotim loole nag moom Abdoulaye Wade mu ngi koy ñaalu di di xam ne rek ne président Macky Sall moom moo fa jaar ndax rakkam la moom moo ko defal bile faveur ci sommation interpellée palliative bi nga xamante ne euh, Alioune Sall indil na ko ko moom euh, Abdoulaye Wade dina dem ci yoon wuyu ji ko won ko ni moom it am na ay preuve ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko ba tey dañuy teewlu ay kàddoom moom mi fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal ci micro Mody Gueye ci caméra bi Thierno Laurent Mendy. un à, la colonie. Pourquoi à son frère Pourquoi il ne donne Pourquoi à lui Pourquoi Parce qu'il est le frère du la République. Il faut qu'on ait l'habitude de dire, de dire le courage de dire les choses. Et quelle est la portée de ces répartitions du capital c'est que le vous savez que dans une société, le profit est réparti selon le nombre d'actions de chacun. Monsieur Alissa aura de tous les gains de cette société. Voici les faits. Monsieur Ali Hussal se retrouve dans une, société qui a des permis d'exploitation de pétrole. c'est ça qu'il faut retenir. Alioune Sall mi ci joxoñ baaraamu tuuma nag moom it daal na àddu ci mbir mi indi rek ay preuve neex di xamle ne lépp li nga xamante ne Abdoulaye Wade wax na ko loole amul te it tegu ko fenn moom Alioune Sall xamle ne du benn action bu mu am ci société bi di Petro Tim xamle itam ne ki nga xamante ne moom moo di magam di président Macky sal du lenn loo xamante ne mës na ko ci dimbali wala jàppale moom Alioune Sall daal di rek yëkkati yooyee te doon janook taskatu xibaar yi ne dina yóbbu na sax Abdoulaye Wade ci yoon ngir rek eh, tuuma yi nga xamante ni teg na ko ci ndoddam mu indi ci ay firnde yu leer moom Alioune Sall doon janook taskatu xibaar yi Adiatala ak Mar Dieng ñu ngi fa woon. Aliou Sall di njiitu Petro-Tim bàyyiwul dara ngir teggi tuuma yi ko njiitu réew bi woon di tuumaal mu daal di wane ni ay këyit yuy dëggal contrat bi Sénégal xaatim ak Petro-Tim Limited te njiitu réew woon ak premier Macky Sall xamul édiwam mosu ko gis mosu ko séen mosul wax ak moom téléphone mosuñu toog kon kooku naka lay xamanteeg moom ba naan ko joxal ma trent pour cent ay sama rak ak ay wax yoo xam ne amul benn solo. kon affaire action ak yooyu yëpp ay yëfu caaxaan la ñu ñëw ci wàllu trent pour cent ak ay 200 milliards yu kenn xamul. Euh, Abdoulaye Wade moo leen gën a xam li xew yëpp parce que wax lii yëpp moo ko signé te réeru ko te gaa yi ko jege sax ñoom ñoo gën a xam ne Abdoulaye Wade xam na lii. kii jiite Petrotim Sénégal di filiale Petrotim Limited xamal nañ ne du leneen lu dul kuy liggéey rek ñu koy fay. américain ne ko ñun mën nañu jënd waaye condition bi ñuy posé mooy benn il faut que ñun ñu am majorité mu ne moom il veut garde en tout cas des parts parce que am na yëg-yëg ne fii ñuy wax dara war na fa am ñu waxaale ba waa Cosmos Énergie naru nangu jël 60 pour cent bàyyee ko donc ci 90 am ñu bàyyee ko trente pour cent moom Franck Timis état du Sénégal garde 10 pour cent 30 pour cent yooyu de la Abdoulaye Wade dégg rek ne Aliou Sall ko moom ma ne nag ah man da ñaan naa yàlla am 30 pour cent société bu yem noonu. waaye nag yàlla def na amaguma ko maa ngi leen di répété waat dërëm bu gën a ndaw bëgguma tooñ suma xaritu malien yi waaye dërëmu Mali sax yoruma ko ci société boobu à part lañ may fay suma salaire ak xëy na yenn temps yi bu année bi dina naree jeex ay primes ñu ma mun a fay te lépp lu ma ci am mu ngi jaar ci sumay compte banquer fii ci Sénégal boo demee Ecobank jox naa leen autorisation nañu tracé lépp la fay jaar parce que maa ngi koy déclarer impôt di fay impôt Mamadou Diop Decroix moom moo Aliou Sall tontu na ko te xamal ne du bàyyi dara ci xeex bi ki ko wokk rek ñu xuri ko. bu ñu continuer di ma accuser ma ne danaa continuer te arrêté gu ma ko poursuite judiciaire yi may def. Decroix nag je suis triste mais de toutes les façons c'est pas grave parce que euh, troupeau ay golo moom boo reyee ngonko bi rek ñi ci des daw man Ablaye Wade laa amal affaire aw ma ak affaire ñu nekk ci ginnaaw. ci ndaje taskatu xibaar yi ak Aliou Sall moom mi Aliou sàll ñëwaat na tamit si jaar-jaaram bi wane ni rekk lépp lu mu am rek daf ko ñàq moom Alioune Sall ci janoom ak taskatu xibaar yi daal di rek uh, woo ki nga xamante ne moom moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Abdoulaye Daouda jàlloo ngir rek mu watu karangeem ndax moom Alioune Sall dafa daal di rek xamle ne moom fi mu toll nii dafa jàpp ne dañ koy menacé te dafay ragal ni li daloon Talla Sylla uh, dal ko moom mi fi moom mi nga xamante ne moom moo di rakk ci président Macky Sall di woo Abdoulaye Daouda Diallo ngir mu jël ci ay matuwaay ni mu gën a gaawee dañuy teewlu ay kàddoom ba tey ci micro Adia Talla awma salaire gouvernement awma oto gouvernement awma carburant wu gouvernement suma agent sécurité yi ngeen gis ñuy toog man maa leen di fayal suma bopp d'ailleurs j'en profite pour interpeller solennellement le ministre de l'intérieur parce que nit koo xam ne dañ koo jiiñ rey nit jiiñ ko agressé taala si la am ak yow affaire di la boole ak ay cent mille personnes bu la waxee da nga war a artu donc je demande au ministre de l'intérieur d'assurer ma sécurité ci coowal ArcelorMittal la ñuy wax ak euh, Front patriotique pour la défense de la République mi sàkku rek ñu ubbi ci ab enquête parlementaire ngir gindi ci askan wi ci assemblée nationale na ku nekk ak ni ko gisee euh, député bi di aw Guèye moom jàpp na ni proposition boobu jarul ñu koy euh, def moom gisul lenn loo xamante ne war na koo mën a indi ndax lépp loo xamante ne jëwriñ bi ñu dénk wàllu koom wax na leen ko ñoom jàpp nañ ne loolee moom moo am waaye kii nga parti démocratique sénégalais moom rafetlu na bu baax a baax bi le proposition di sàkku nag ñi topp ko ba keroog askan wi di am lu leen leer ci mbirum ArcelorMittal dañ ci teewlu reportage Aminata Mbaré Sow ci caméra bi Modou Diop. commission d'enquête parlementaire boobule buñ ko defee dina tax nit ñi gën a am lu leer ci lu jëm ci dossier ArcelorMittal. ndey ndayu mbilli ji sax ci boppam jël na les devants nu mu jëlee les devants mooy dafa jël dossier bi yóbbu ko ci. ci yoon comme dossier bi yóbbu na ko ci yoon ki nga xam ne moo wax loolu ah dinañ ko woo mu indi ci ay preuve su fekkee ne preuve yooyu avéré na bu boobaa ñu xam su fekkee ne preuve yooyu avéré wul tam bu boobaa ñu xam. mais c'est normal que député yi def une commission d'enquête pour mën a xam exactement li xew mën a leeral sénégalais yi et yaakaar naa ne ki ko wax ancien président de la république yaakaar naa ne du n'importe qui moo wax du Woré Sarr moo keneen ko wax. waaye bu ñu sukkandikoo ci Awa Gueye di première vice-présidente ci assemblée nationale te bokk ci mouvance présidentielle li nga xam ni ministre de l'économie et des finance daal dina koy wax ci lu jëm ci dossier boobule doy na sëkk. ñun député yi mbir mi dafa leer naññ ci ñun démb ci suba bi ministre des finances jaare la joxe ay explication yu leer nañ ñu di wax ay commission d'enquête dañu bëgg rek andi ay diversion. majorité mécanique loolu rek lay jariñ. loo xam ne neexu la neexul sa président doo ko wote loo xam ne arrangé wul sa président arrangé wul sa gouvernement doo ko wote. ci fàttali ci meeting bi ñu fi amaloon ajjuma gi ñu weesu Abdoulaye Wade dafa xamle ni kii di Aliou Sall euh, te mu yore société bi di Petrotim Limited euh, dañ ko jox ci lu toll ci fanweeri pour cent ci contrat bi nga xam ni nguurub Sénégal daal dina koy signé ak ArcelorMittal loolee mu gis ni ab càcc la loole waral ñu bëgg tey dossier bi leer nañu ci bopp ñëpp moo waral Mamadou Diop Decroix ak i ñooñam bëgg ñu amal benn commission d'enquête parlementaire ngir lépp leer. mouvement bu contre sommet de la francophonie nag bëggoon a amal ab marche préfet bu ndakaaru lankal na leen ko euh, daal di rek xam le ne euh, samedi bi ñu ko bëggoon amal du ñu am ay alkaati yu doy yu leen mën a topp euh, ci seen marche boobee ba tax na joxuñu leen ab autorisation moom Malick Noël Seck ak ñi mu àndal doon ñaaw lu dépense yu bëri yi nga xamante ne def nañ ko ngir rek dalal 15e sommet de la francophonie dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen jotaay xibaar xibaar yi biti réew yi ca Burkina Faso colonel Isaac Yacoub Zida di njiital jawriñ yi di sàkku rek Maroc delloo si ki nga xamante ne moom moo di Blaise Compaoré ndax ñoom dañoo bëgg ubbi ab lanket ci faatu euh, Thomas Sankara jàpp nañ ni nag kii di Blaise Compaoré élément la boo xamante ne kenn mënu koo bàyyi ginnaaw bu ñu bëggee am lu leen leer ci naka la ki fi nekkoon njiitu réew bu Burkina Faso euh, fato Pape Cheikh lii mooy li ñu fi yoroon ci ay xibaar. jërëjëf xam naa ni doyewul sax ndax bu ca kanamee di ngeen dellu si. ñu ngi gërëm rédaction bi yëpp ci euh, seen taxawaay ci euh, suba gi 10 heures ñu àndaat ak yéen journal bi lay ci français jërëjëf euh, Fatima Ba Pël Fouta <laughs> jaaraama ba pulo ndekki laa nga ci ginnaaw boo demee jël xam nga lii nag dafa neexa ah, mooy li ñu tuddee kal ah, di di di di tooñante dafa indi jàmm ci suñu biir te moom sama kal la fu ma ko romb xas ko ba mu ràpp te eh, te te te du ma sañ a xee du sañ a xeex ak man. boo ko dee borom dog yi ko borom dog <laughs>